te nag Neighbour moo xewle Neighbour nit ku baax nit ku am dal am yar fonk jëkkëram li ñoo wax ci yow bu bari because nit baax na wax ko ba ca jàpp Neighbour ñu laa ñaan sa mbaax gi nga xam ne moom leen la déggee ñu ñëw dëkk ak yow baax ñu dem bàyyi nga gën a baax Neighbour yàlla may leen njaboot bu baax te toog nga nga tudd ko happy birthday happy Happy birthday, neighbor. Happy birthday, neighbor. Happy birthday, neighbor. Neighbors, dingen koyek. Te e birthday, neighbor. Neighbor peer. Happy birthday to my beautiful wife, Fatima Tandong Kure. Gërëm naa la, sant bah bah Kontaan naa bu Happy birthday, neighbor. Neighbor yi tiira bi, sister tiira. Dundal lu yaaga yaaga. Happy birthday, neighbor. Happy birthday, neighbor. It's your day, happy birthday. Swing neighbor, happy birthday. Let's party, we gonna party. Joyeux anniversaire. Bés bu dellu si moomu happy birthday to you. hey man Aliou Badara Nébo maa lay wis a happy birthday Nébo bu jigéen dundal ba doyal Séeri Lamine birthdays we had it for ko salimit at yu bari bari bari yàlla may la mu gudda ak wér yaram di la ñaanal yan na yàlla may njaboot ci barke sa sëy bi bugga nga ñu def bugga em waaye ñoo la gën a bugga we love you bye suba nee ne tuuti suba la birthday bi efo eh, maa ngi lay wish happy birthday di la wish many many many happy returns efo eh, ba nga ñëwee suma kër yooyu dara kontaan naa ci yow torop torop maa ngi lay ñaanal ñan nga tok bes yaa ñaar ngeen am bes bo xamni si yi ñew ñu def parti bo xamni ne nañ ko bo sa baat bi bii kontaan torop happy ah. birthday again and many happy returns buna fan wer bu yara nga nekkaa ñaka ci wer market yeen yeen rek no wuja no noti yaayam amut wuja man xaw ma ñaareel xaw ma pour la yem na happy birthday neighbor wow, Happy kay moom happy birthday man dina ko fekk at yu bare bare happy birthday once happy birthday Efo Touré happy birthday Efo Touré yal na la jig waay yal na here is Efo happy birthday fan bu gudda ak wér gu yaram wér ak wér gu fekkee ko at yu bare bare bare bare defal ko wa magi jambur wa happy birthday ya, yanne ko fege adi bare bare bare lu ngi waré hit nañ ko lu ngi waré dañ ko ri rikita happy birthday ni bo fekke ak yu bari yalla may la fan bu gudda ak wer ak wor sak ya xam lo bu ko saxo jangal ko yalla defal alhamdulillah alhamdulillah efo will will be close one tomorrow Eh, di konyana ñaanal ak sutura yalla barkal ko jubale ko jëkkëram yalla isin na tànge ci ya, moom eh, yàlla ya, mun na ko def I'm so ya. proud of her Di jàppale di ma jabale. Eh, alhamdulillah kontan na ci mom am ko wish a happy flavored birthday eight multiplied by three or four uh, yal na ko yàlla def yàlla mën na ko yal na ko yàlla def happy birthday waay yal nañ ko fekkee ak bu bëri waay waaw ma ne happy birthday ex néegu ko ex néegu ku dal lu bëri waay néegu ku dal happy birthday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 any holo andando neko peno many I see many I see Bullet, bullet, bullet,

الإنسان ميروكوني أنسيان سيطاني بخمون تسلوني واي يابي أبداني بولوا andando nekto penu meni aisea Meni aisea